jàpp mooy li mu def ci Sénégal benn chef d'état mosu ko def bilan maanaam li mu def en maanaam Macky Sall boo bëggee nga résumé bilan am na benn chapitre bu ma def ci euh, ci livre bi bu tudd un bilan matériel fort appréciable maanaam boo bëggee xam li Macky Sall def mooy lu Abdoulaye def benn Macky Sall def na ko ñett pour wax ji gàtt xam nga li ma bëgg a c'est-à-dire ci ci route ci ci tali lu lu am laa def benn makisal def na ko ñett comme naan ci économie ci xaalisu réew mi lu Ablaye def benn makisal def na ko ñett comprendre maanaam Macky Sall il a bi mu ñëwee le Sénégal bi mu fekk bi muy bàyyi en terme de capacité ci domaine bu nekk ah Sénégal bi mu bàyyi. c'est de à trois fois plus fort que Sénégal bi mu jëloon ma wax ko ci wolof dama ne Macky bu jógee ci bopp réew mi Sénégal bi ñu ko joxoon ëpp na doole Sénégal bi muy bàyyi ëpp na doole Sénégalais bi ñu ko joxoon ñaari yoon ba ñetti yoon ci nattuwaay boo mën a jël nattuwaay boo mën a jël muy infrastructure muy chiffre macroéconomique muy taux de euh, dépendance de l'économie maanaam lépp loo mën a jël nattuwaay boo mën a jël lu Abdoulaye Wade def benn Macky def na ñett da nga wax bi def na lu ëpp solo loolu loo xam ni kenn du ko wax parce que nit ñi koy gis dañu bari dafa sécuriser réew mi par rapport ak menaces yi ko wër xam nga baax li ma li ñu doon fontoo ñëpp muy Yaya Jammeh muy Guinée Bissau mooy même Mauritanie bu Abdel Aziz muy Alpha Condé ak ses gesticulations dafa ñëw neutraliser yooyu ñoom ñëpp apaiser li wër Sénégal yëpp jël benn pont jaarale ko ci fleuve Gambie gars yi di jaar jóge Sénégal enjambé Gambie dugg biir Sénégal da nga wax pont boobu kese cest à pont bi Macky Sall def mu jóge enjamber le fleuve Gambie pour boo jógee fii bañ a taxaw Gambie rek jar na deux mandats. victoire déggoo déggoo li ma la wax voilà donc Macky Sall man li ma bind laa gëm c'est le meilleur chef d'État bi Sénégal mos a am bi Sénégal amee ba léegi. li may wax ni chiffres moo ko wax. ok bon def na ay dégâts nag. yaa la un bilan immatériel boo xam ne bind naa ko aussi ci li nga xam ni doxul baaxul waaw ak. yenn gaaf yi voilà noonu la mais àdduna moom xam nga kenn mënta matale mais euh, démocratie bi dafa hmm. son magistère état de droit bi euh, dañ ko flageller hmm. sous son magistère euh, c'est vrai dañ naan hmm. Macky li mu teg opposition amul benn chef d'état sénégalais bu ko teg son son son opposition et ses adversaires d'accord naa loolu dëgg la mais est-ce que li ko opposition teg am na benn opposition bu ko mës a teg chef d'état sénégalais. Abdou Diouf Abdoulaye Wade teg na ko ah, lu ko raw déedéet li Ousmane Sonko toog Macky Sall amul benn opposant bu ko mës a teg chef Abdou Diouf Abdoulaye Wade yàgg na non non bokkul nag metti na non may mun a ah. bokkul non bokkul Sénégal mosul toog ñetti fan yoo xam ni pouvoir bi mi ngi ci mbedd mi loolu mosul am ah loolu mosul am mais xanaa xam ne deuxième mandat bi Macky Sall gouverné wul ah deuxième mandat bi Macky Sall gouverné wul gouvernement boo xam ne lépp conseil de sécurité armement renseignement défense ah non loolu aussi da koy xool. mais kan ba pare nga xam ne aussi il faut nit ñi xam benn affaire peuple Sénégal dafa changé on n'a pas on n'a plus le même peuple maanaam peuple bi Abdou Diouf doon gouverner askan wi Abdou Diouf doon jiite. askan wi Senghor doon jiite askan wi Abdoulaye Wade doon jiite bokkul ak askan wi Macky Sall di jiite askan wi Senghor ak Abdoulaye Wade ak yooyu de buñ mosaan gis gars yi lacrymogène dem fatu ji fii booy yi bu gars yi lacrymogène yi takkarnaase ci lañu gën a mën a avancer donc du xam nga mën a pour nga comparer contexte yi ñoo dul benn xam nga baax li ma la ko wax. est-ce que le Macky moo radicaliser son opposition. non bilan immatériel am xam nga maa la ko wax bilan immatériel am yu bari mën nañ ko cee critiquer loolu d'accord naa bind naa ko ci démocratie bi transhumance bi ah wax waxeet yi tout ça je suis d'accord mais il faut savoir aussi que gis nga may wu benn moment réew mi ku ko teewul woon day basculer ah. mm-hmm. xam nga loolu euh, te des fois boo resserré wul réew mi day basculé ah. man xam naa ne am na yu bari yoo xam ne def na ko te bëgg ko woon def mais te obligé def ko pour réew mi bañ a nërmeelu pour la bonne cause. may mun a am na benn science bu tudd la collapsologie boo xam ne mosul am ci àdduna mu ngi soog a am ay boroom xam-xam yu sérieux di waxtaan ci réew yi ni ñuy dem di nërmeelu benn par benn nërmeelu àdduna bi ci boppam ni muy dem bay nërmeelu la collapsologie def ci ay recherche képp ku yor réew dof doflu léegi réew mi nërmeelu parce que réseaux sociaux yi rumeurs yi ñuy fabriquer confusion yi ñuy fabriquer par exemple xoolal Sénégal tey fi mu toll am na ñoo xam ni bu ñu xëyee suba ba ngoon lenn rek ñuy liggéey fexe ba dara du leer. lu leer ñu lëndëmal ko ay nit ñoo xam ne ils ten sciemment la confusion à des desseins inavouables manaam confusion rek bëgguñu dara leer lu bëgg leer ñu lëndëmal ko lu bëgg a leer ñu lëntal ko foo leen fekk ñi ngi fen ñi ngi jaxase ñi ngi désinformé ñi ngi yàq xelu nit ñi ñi ngi dressé nit ñi mais loolu lan moo ko gën a rëy mais donc ma ne la tey boo jiitee réew bis boo xefee xef laa wax mais xoolee ay famille Ali Bongo demoon nañ ba yaakaar ñoom moom Gabon bi ñu xefee ñu suuf Bazoum bi ko américains yi ñëw indi seen base français indi seen base mu yaakaar ne moom moom Niger. en un clin d'œil dafa basculer foofu la àdduna non si foofu la àdduna bi toll. Ibrahima Traoré. voilà il a échappé à faut une vigilance stratégique de tous les instants gis nga Macky Sall je te donne un exemple ma wax la benn affaire bu ndaw am na benn société pétrolière boo xam ne nii dafa laajoon licence après mujjul am licence créé na rébellion boo xam ne Sénégal ñooñu. bu ñu duggoon ci réew mi musiba naaru laay dal ci réew mi ñooñu en un temps record la leen Macky Sall écrasé d'une manière boo xam ne xam nga Macky Sall bi ñu def ci interview bi fii France 24 dafa am lu mu wax te ñu bari dégg ñu ko def ni y avait une coalition pour prendre le Sénégal ils ont lamentablement échoué coalition boobu dina am ay livres yu ci génn ñu wax nit ñi lan moo xewoon ak ñan ñan ci bokkoon ak yan intérêt moo taxoon ak yan pétrolier ñoo ko financé ak yan salafis ñoo ci nekkoon. parce que wax na France lan moo tax France dugg ci. Oh, tudd na France. est-ce que dégg nga wax les salafis. voilà donc yooyu yëpp nag soxna si boo ko boolee faaw nga diisal loxo bi tuuti pour yëf yi ban laa échappé.